bu ñu xëyee tey am ñoo xam ne dañu jox taxaw ne ñoom ay notable lañ di réunion di def mën nañ leen ko nangul rek bàyyi leen parce que au moins dina tax ñu am activité dina tax ñu am lu ñu def waaye ça ne veut pas dañu yor daray Wakam amuñu benn décision si Wakam mais la nga xam ne mooy dagg xol ba ñii ko yor xam nañ li ñu war ñun xam nañ loo gis dafa am tempo dinañ def nañu ay commission de recensement commission de recensement yooyu bu ñu paree dinañu xool nu ñu rectifier yi nga xam ne moo passé dinañu xool li nga xamante ne moom moo gën a jub moo gën a nite ñu ñu ñu def ko ba nga xam ne ñëpp dinañ si am jàmm ak salaam ñii di bind di opposé compte yi ak ñi yor banque yi di bloqué nañ préparé seen kaw lañ jëm dinañ développé compte yëpp dinañ développé suuf si te dinañu fexe ba soobee yàlla waa Wakaam yëpp nii Wakaam gënoon a neex si Sénégal mu neexawaat noonu